Show l'actualité en continue actuellement bi ñu fas yéene xam donc Sadio Mané mi nga xamné nak actuellement am na ñaari kangam yu nekk ci Real bu mooy tuddee fekk ci ko fofu ak également wax ci nga xam donc Coupe d'Afrique des Nations bi Maroc naan organisé ak kii di Hervé Renard ak aussi Samuel Eto'o Fils laata boobu nag encore une fois mbokki Sénégal yi respect à tous ces fils du Sénégal fépp foo le maintenir quand ah, si gox yu gën sori ci Sénégal ku nekk ngay représenter tay Sénégal ñu lay jaajëfal di la jox loxo di wax également le Sénégal aujourd'hui est devenu un Sénégal sans président respect à tous les Sénégalais on n'a plus de président le je n'ai plus de président et la démocratie sénégalaise je koy ndax nañ ko ah, le 3 février la nous li xam donc di euh, démocratie ci euh, Sénégal di ñaan suñu borom rek ah, may nous avons ah, parce que fi nous avons dit, mais Sénégal <laughs> dem nationale nous man sama faire rire Je ma ci pas parce que je suis Sénégal et comme on dit rek ku un nguur mérité mom ngay am mais la lutte continue am nañu démissionné tay Eva Maricol Coll démissionné am na ñeneen ñu démissionné pendant ça également respect à Youssou Dabo je l'ai dit doomu Sénégal bu le Sénégal joxé lépp da nga koy delloo Youssou Dabo c'est un entraîneur bo xamné lu ko nit ñi mënta waxal c'est quelqu'un de charismatique c'est quelqu'un de véridique motax du djubo ak gaay c'est pourquoi Youssou Dabo du djubo ak euh, wa fédération parce que c'est c'est quelqu'un de véridique ku gëm boppam la ni da ngay gëm sa bopp comme on dit en hein, playboy là. quand je dis playboy mon ngoog fédération sénégalaise de football nak ñom dakal nañ pour l'instant lépp lu jëm ci championnat bi ndax ne nañ xam rek yëngu-yëngu fi daal am ah grève yi nag bëri na yàlla na grève yaa ngi am ah, donc Sénégal moom li leen tax a jot mooy mu gën a jëm kanam foot local bi également arrêté nañ li nga xam ne aussi moom mooy donc i euh, compétition loolu nag jëm ci li nga xam situation bi ñoom ñëpp di ñaawlu benn moment li nga xam ne moom bu fi xewee Sénégalais yi kenn du nekk ci jàmm mais yàlla nag moo nekk ci kaw dañuy dénk suñu bopp yàlla yàlla moo mën.

annonce pour nous également euh, li nga xamné moy Predator 24 bi war a génn day am signature bu Jude Bellingham ki xamné également ngi Florian Maurice ancien joueur de football football de Marseille entre autres moom nak fini tout nii du côté de la Roma ne est ñoo fa directeur sportif la Roma, ki nga xamné nak sportif de donc Roma dit euh, donc Florian Maurice jëm successeur euh, bu euh, nga entraîneur Barcelone bi la Xavi entre autres mauvaise pour gars yi nañ boo moytu da forfelo ci li dess ci euh, compétition bi jëm nak également ci ki nga xamné momit euh, xamé ngeen ko hein, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain n'est que nga xam donc du côté du euh, Borussia Dortmund moom nag jëm nañu daal ñi wax nan du côté de l'Arabie Saoudite daal lay waaj dem le défenseur belge qui nak également du joueur brésilien xam ngeen ko momit it hein, de Newcastle momit it hein, Paris Saint-Germain mi insisté insister Manchester mi am club daal lu insister pour recruter qui nga donc Bruno Guimares, le milieu de terrain de Newcastle, des McPrize, qui ramène également aussi le Modonko, qui également dit Leao, Leao aussi Manchester mi ngi Paris Saint-Germain mi pour recruter attaquant attaquant pour man amna attaquant mais luma que c'est pas un attaquant qui te marque 30 buts dans dans l'année Le règlement est mais mu ko Leao qui nga aussi donc euh, Bertrand Traoré dem na signer du côté donc de FC euh, plutôt de Villarreal comme agent libre le joueur euh, donc burkinabé un excellent joueur qui joue bon de football ngini Bertrand Traoré mon ak frère bien entendu pendant ce temps également Onana mon Arsenal m'a insisté Newcastle m'a insisté club yu m'a insisté pour recruter euh, le joueur belge d'origine sénégalaise Onana donc fi mu ne dal daal moom daal ak Everton am fi mu ne nii euh, pendant ce temps nag Badou ndjay hein ah, pan pan Pape Alioune ndjay dem na nag signé du côté nak de Pending Sport hein donc mom gannaaw bi nga xamee ne mu ngi même club ak ñoom Mbaye Niang ak également ki mooy Pape Abou Cissé actuellement nak club la boo xam ne fi ñu de Adameri Sport nak ay problème finance problème salaire dal motax tax fi mu yu bëri ñi ngi jógee fofu noonu ki nak di Pape Alioune Ndiaye na fa kii nag di Hervé Renard gannaaw bi ko doon tudd du côté de Égypte ak Algérie Algérie mom pisi moom jaar na lé parce que fi mu ne nii daal Erna dematul Algérie loolu daal la gars yi di wax wax kii nag di donc Samuel Eto'o Fils démb dafa daal di euh, annoncé ba mu defee assemblée ne dafay démissionné ji fédération bi loolu la wax jox jébal na démission am ne waa kii yëpp nañ démissionné ñoom daal tamit ñu ne ñoom daal ñoo bañ gars yi une ñoo bañ ñu démission bu Samuel Eto'o et que ñoom démissioné wuña ah, donc loolu daal la ñu wax li na gars moy affiche demi-finale ah, Nigeria a ak Cap plutôt Afrique du Sud Nigeria trois trophées continentales Afrique du Sud ben, Côte d'Ivoire ñaar daye Congo euh, tamit ah, li nga xam donc euh, ñaar kan moy nek champion d'Afrique en tout cas la demi-finale yi warna na duel yo xam duel yu Nerledon donc Super Eagles Nigeria contre également les Bafana Bafana d'Afrique du Sud les éléphants de la Côte d'Ivoire contre les léopards de la RD Congo qui le battle des demi-finales très dernier champion d'Afrique Bou baisse. Qui a donc Victor Osimhen le phénomène de la Syrie mais également du Nigeria ah, euh, contre ñi donc Bafana Bafana yi tout du ko joué ndax parce que fi mu ne une blessure keroog il aussi des problèmes abdominales. problème ah. problèmes abdominales, ay problème pendant ce temps ñi Maroc Maroc ñom nénañ li nga xamné ne donc coupe d'Afrique bi été lay am maanaam ci weeru juin yooyu dal lay amal li nga xamné donc coupe d'Afrique bi euh, période bobu ndax période ñu am bi période nawet la ñom dal loolu lañ dal di euh, proposer donc pour amal li di coupe d'Afrique Afrique des nations bi les de l'Atlas. Sadio Mané également euh, gannaaw bi nga xamné mom actuellement il va retourner du côté de Al Nassr donc ñi nag du Al Nassr nag am plan pour recruter yenn joueur madrilène pour ñaari ñeu renforcer équipe bi bokku na ci joueur yi ñuy tudd nak ay joueurs yu kangam yo xamné jëm jamono ñi ñu ci Angleterre ñu nek même club muy Casemiro ak ki xam donc kebakaran jamono dal ñom ñaar la gaay yi ciblé Al Nassr bokk na ci seen cible pour ñeu eh, dem leena indi ci saison bi ñeu dal ñu ñëw signé du côté de l'Arabie Saoudite loolu daal lañuy fi ne nii di ruumalaat ci souf gaay li ma nekkoon information yi ñu jox toujours plaisir de vous servir respect également à ce monsieur ah donc euh, seigneur Théodore Benjamin Diaye donc ko xam ne tu deug la ci personne de véridique wax na lo xam tamit également ku ko dégg xam ne kilifa li lañu xaar ci mom di jaajëfal également kilifa diine yi nekk ci Sénégal yépp am wàll également ci ñu Sénégal mais aussi comme on le dit euh, Sénégal il y a jëm non ou à la dictature vive le Sénégal vive le Sénégal libre et également sous le sous bonne su on avance ensemble